mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat euh, di leen euh, gërëm bu baax am mbégte teewaat fii ci ndimbal sunu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax ci 30 minutes euh, chrono gi nu fas ànd ak yéen ñu koy defee saa su ne ci solution info TV tey jii ñu dellusiwaat fa yéene ànd ak yéen ci actualité bi actualité bi nag doon une actualité. boo xam ne bu riche la di fàttali ni Omar bun Xattab Gueye moo leen koy présenté di waxtaan woo xam ne dañ koy amag ak yéen saa su ne tey nag ñu fas yéene jàngat wooteeg Ousmane Sonko démb démb ci levée de fonds ci waa Pastef fii mooy bi ñu nekkee ci opposition daan nañ ko def muy dox tey ñu ñëwaat ba ci pouvoir kon ne di ko def te ñun fii ci sunu réew tàmmuñu nit nekk ci pouvoir ñi yëkkati di ko jox ñun booy ut tàmm nan ngir utle la maanaam dimbali ku amul lan gën a sawar jàpp ci ku am te loolu xel mun nakaa nangu tey Ousmane Sonko dellusiwaat na askan wi daa am fu ñu jëm te askanu Sénégal tàmm nañ di gunge mais tàmm ñu du egg te wolof sax da koy faral di wax gunge egg baaxu ci lu tax Ousmane ko jël sa risque bi lu tax mu def pari bi defe ko foo xam ni li waykat yi di ñeme mbooloo yépp balaa ñu faa woote dañ koy waajaat mooy dakaar Arena Youssou Ndour laa gis mu woote fa toj ko gis naa ko gis naa basket bi finalu fa contre Nigéria mu fees dell ñaar yooyu di gis naa ko gis naa aussi Macky Sall bu mu jum mos na fa woote bu dul centre Abdou Diouf je ne lu plus tey Sonko woote fa woote bi nag lu tax mu utee ak yële mooy ñëw leen wuy si waaye boo leen wuy si bu leen ñëw loxoy neen ku mu ne ci yéen li ko dooree ay millions ba ci mille francs xeebuñu waaye yéemuñu mu ne lu tax ñu war ko def mooy da ngeen ñu gunge ci benn projet ci nemmeeku tuur Kopar Express lu mënti doon ci bi ñuy nekk ci opposition ba tey jii ñu nekk au pouvoir di fàttali ni li doolal Pastef tey ba mu egg fii ñu egg mooy politique ñi ko mës di def ci réew mi yépp di jiite ay parti ñoom ñoo nekk les principaux bailleurs gis nañ Moustapha Niasse ak AFP bi muy jàkkaarloog El Hadj Malick Gakou di ko wax kàddu yooyu du ma jaaral ci kàddu yi na ko maa moom sama parti dàq leen ñu gis ni Macky ci biir APR mooy buur mooy bummi ñu gis Abdoulaye Wade moom tamit la même chose bi muy jiitee PDS PDS sax peut-être xawoon na yam ak Pastef tuuti Abdoulaye Wade amoon na xaaj jiite ko mais amoon na ku ci mel ni ñoom Idrissa Seck ñi ñi daan jaay seen kër amoon na président assemblée bi njëkk a nekk président assemblée nationale bi Youssoufa Diagne ay nit yu daan jaay seen alal di ko investir ci PDS loolu amoon na comme ni ko Pastef di defee nii di cotiser pour le partie mais bii lu tax mu wute mooy les militants à la base te bu dee PDS une fois ñu ñëw au pouvoir Abdoulaye Wade mooy buur mooy bummi APRT la même chose seetloo bu ñu mësaane dem élection sax njiitu réew mi mooy taxaw génnee xaalis ne comité sangam wala coordination sangam joxe na leen six cent mille ñu jox na leen un million nga gisoon ni ci biir permanence yi dañ daan xëccoo ba muy am ay frustré loolu daan na am ay frustré ñoo xam ne dan naan ñun lu ñu jox doyul lu ñu jox li boobu parti bi moo doon yëkkatee di joxe gis nañ fi sax jamono yi président Macky Sall ne les directeurs généraux yi nekkoon ci biir APR dem leen campagne yi ci seen localité képp ku ci perte goo xam dama lay dàq ñu bari nag jàppoon ni loolu mbir la mu kenn xamul. parce que boo falee nit ki directeur wala ministre ne ko demal campagne yi loolu boo ko waxee na ko boo gañewul dama lay dax kon kooku kenn laaju ko résultat ci li muy liggéey kooku li ñuy xaar ci moom mooy mu jël xaalisu ministère bi. wala direction bi financé ko base politique am yooyu moo fi doon xew élection présidentielle yu fi mujj rek bi Amadou Ba démarré campagne bi dem nañ ba ci digg bi nga dégg ay nit yu bokkoon bennoo naan ñun jotunu sunu fonds yu ñu war a campagner parce que campagne Amadou Ba yéex naa yëngatu ñu ne jotuñu fonds yu ñu campagner. mooy wane ni kon ki jiite woon parti bi di Macky sàll moom la doon neex mu génnee joxe pour ñu campagne waaye aussi bu la meree wala mu naqadi ko waxuma la xaalis sax waaye bu ko neexee mu tëj permanence bi jël sono bi sax tee ko pour gàllankoor la loolu nag moo doon indi suñu parti yi ay xalif généraux ñoo ko doon jiite wala ay nit yoo xam ne ay buur lañ doon doon te loolu moo tax ñu doon wax démocratie interne dans les partis politiques amul mooy ñi ñu jiite dañuy te wootee démocratie mais boo demee ci seen biir partie amul démocratie te jox naa leen ci exemple depuis Laye Wade Abdou Diouf Macky Moustapha Niasse nu mu yoroon AFP ba tey jii parti boo fi mënti gis gàllankoor bu mel noonu lay doon boo duggoon tey jii grand parti nga ni Malick Gakou boo doon lim tey du jeex mooy. yow yaay yor sa xaalis jiite parti bi foo ne gars yi jaar leen fa ñu jaar fa foo leen ne gars yi dem leen fa ñu dem fa parce que dafa demoon sax ba fii ci ñun suñu réew pour nga jiite parti sax da ngay am alal moo tax njiitu parti yi bari doon mbëkk miir bi parce que boo yoree sa alal di fay permanence bi lépp yow yaa ko moom da ngay sañ ne gars yi nii lañuy defee nii la waxee. waaye fu ma leen jaarloo ñu jaar fa dangay gis sax njiitu parti politique boo xam ne ci njuumte la dëkk waaye ñi mu àndal kenn du ko ñemee wax ñi mu àndal kenn du ko ñemee wax fu Sonko ak Jomaay génnee balaa ñoo pare sax mu ne moom day génn wax te kooku bu doon nit ñi ko wër doon ay cadre am na xam-xam danaan ko nag du nii du nii parce que bu dee nii nga koy defee ci njuumte ngay dëkk ku njuum koy lay dëkk parce que koo xamul nu mu fanaanoo mu xëy nga bëgg ko wax ay géntam boo deful nang ci njum te ngay dëkk léegi nag li fu def ne nan ko doon defee ci opposition noonu la nga koy defee ci pouvoir ku am sa déem indil ku am sa daqaar indil ku am sa leneen ak leneen indil yéen ministre yi ak directeur généraux yi ba ci maire yi ak député yi li ñuy xaar ci yéen moo ngeen participer waaye nag waxuñu ngeen jël alal gi ñëpp bokk ngeen koy joxe neex ndaxte wolof nee na baax ci sa alal mooy liñ soxla mooy li ngeen di fayeeku weer te mu doon seen moomeel ngeen yëkkati ji def ci parti bi te loolu moo jaadu parti politique boo ci bëggee am baat am kàddu bu doxee nga ni dox na loo àndul nga ni ànduma ci mais nag da ngay cotiser da ngay participer parce que noonu la ñuy dundalee parti parce que man daa am question sax yu ma doon posé te pour man passif war nañ ci gën a mën a bàyyi xel waruñu sax bàyyi ba élection jot ñu naan directeur généraux ministre député maire cadre keneen ak keneen mooy ñiy jariñu ci parti bi ñoo ñoo war a dundal parti bi mooy dala fal directeur général parce que war na def de telle sorte que képp ku nu fal weer wu ne waxuma élection de nga am loo cotiser ci parti bi parce que am na parti yuy doxee noonu PDS bu mu juumul daan na doxee noonu mais loolu moo jaadu mais war ñu xaar ba élection sax ñiy def loolu parce que yow parti bi moo la jariñ lépp ba nga falu danga war a dellowaat parti bi lu mel noonu kon waratuñu xaar ba élection jot ñiy woote sax lu mel nii mais danoo war a fexe ba keesu parti bi am alal joo xam ne parti bi da ciy dund ñu mën ci financer seen permanence parce que dañuy louer permanence am permanence mais aussi ñu mën ci financer yenn formation parce que vocation parti politique mooy formation mooy éducation yooyu yëpp da ci am parce que l'école du parti bu ñu koy wax mooy pour tàggat les militants jàngal leen pour que ñu xam li mooy ligne parti bi lan mooy idéologie mais aussi lan mooy vision wu ñi ko jiite. kon lii am na solo léegi nag li ci Sonko jublu benn financement bi ci la campagne bi mais aussi natt la base est-ce que mbir yi mi ngi yëngatu ba noppi parce que njëkk na ko def grand théâtre dinaa ci dellusiwaat woote ñu gis mbooloo teew mu wax ak ñoom jox leen doole parce que boobu gis nañ ni mbir yi nee na tekk parce que Sonko a chaque fois xam na ban moment lay yee base bi parce que day dem ci campagne te bëggul dem ci ay incertitude parce que nag ñun dafa am ñu ñu tàggatee mooy boo nekkee ci opposition mën na la gunge mais boo nekkee ci pouvoir ñu bari dañ naa la yow yaay nguuru da lay nguur gi ku ne bu xëyee boppam lay tal léegi nag le pari de la mobilisation pour man moom la Sonko di tester parce que li mu def mënoon na ko def grand théâtre mënoon na ko def feneen ak feneen mais pourquoi Dakar Arena Dakar Arena yoon wi yombul dem ak dikk bi yombul mais aussi feesal ko yombul mu ngi mel ne Youssou Ndour ba muy way bu day dem Olympia Lyon jékki-jékki mu song Bercy noonu la kilifa di nattee boppam parce que toj na fépp léegi. parce que jamono gi muy feesal Olympia dem na ba Aline Mbaye der di feesal Olympia léegi Youssou Ndour yokk jéego bi dem Bercy noonu la kilifa di nattee boppam te pour man Sonko day natt boppam natt projet bi natt après six mois nit ñi est pare nan pour accompagner le projet kon lii défi la boo xam ne les patriotes Sonko daf bëgg ñu relever ko. du rek xaalis bi kase mais le pari de la mobilisation parce que xaalis bi du problème parce que xaalis moom lan la ku bëgg def dara di nga def dara campagne bi 21 jours loolu beneen mbir la mais bu leen neexoon ñu ne dañuy jël budget wu réew mi xaalisu réew mi financé ko seen campagne mais pour pourquoi ñu bàyyi ko fa parce que nag lu waaye di wuyoo da koy nuru mooy jub jubal jubbanti. munoo woote lool ba pare woote transparence woote bonne gouvernance ba pare ñu lay gis ci leneen kon patriote yi soo ko lim bëgg mooy ñu dimbali ko te jàpp na ni dimbali ko mooy dimbali seen bopp parce que ñi ngi dem ci ay élections soxla na nañ une majorité à l'Assemblée mais majorité boobu ay loxoy nen du ko joxe parce que nag li Waly boo jaa waxoon na fee ne bu dee da nga jàpp jàpp jàkkaarloog une opposition de milliardaires boo xam ne mën na financer la presse mën na financer ses militants à la base mën na lii ak lii ci jamono joo xam ne ñu bari dañuy dugal ci bopp nit ñi réew mi neexul ndax dañuy bën ko jiitee lii ak lii ak lee ak lee léegi nag opposition bu mel noonu du loxoy nen moo leen di gagné ci élection te man inquiétude yu ma doon am rek la na ko sama bopp parce que man dama doon wax ni Pastef waruñu bàyyeek lépp Sonko parce que bari na ci ñoo xam ne tey même investir na leen ci liste député yi mais duñ baat campagne dañuy nooyal yaa fus naagu parce que jàpp na ni Sonko mën na lijjanti lépp comme ni mu ko defee woon local defoon ko législative atum deux mille vingt deux ñu am na ñu jàpp ni moom même ñoom bu ñu baatul campagne seen ko xonk bu ñëwee rek lijjanti lépp parce que en vingt et un jours mënoo dem fépp mais mënoo def lépp kon bu weesoo. dugal seen xaalis feesal Dakar Arena mais à la base militant Pastef yépp surtout ñu ñu investir à la base ñooñu man dama gëm ni ku mu ne ci ñoom dafa war a doon benn Sonko dans les départements dans les 46 départements département boo dem ku ka fa dafa war a doon ab Sonko parce que aussi loolu mooy politique parce que Sonko gëm naa ne amatul li muy prouver parce que nag en politique dafa am des hommes de base et des hommes de combat des hommes de base et des hommes de combat te loolu mooy woote bii nii est-ce que jeunes yi ñu ngi suivre ba léegi est-ce que parti bi mi ngi yëngatu ba léegi est-ce que massification bi mi ngi doy est-ce que Pastef dafa yokk ci diggante bi wala dafa wàññeeku parce que généralement kii ut bu demee ba jot nguur li ci ëpp électorat am day wàññeeku électorat am day wàññeeku li ci ëpp parce que même élection sax législative yi ngay dem li ci ëpp taux de participation bi day wàññeeku loolu ay remarque la yu ñu def kon intention wu Sonko ak défi yi Sonko bëgg relever c'est mooy lu ñuy jàppoon ba mel ni xale yi bu leen ko bàyyi jig na leen léegi nag ñu xool ci diggante bi est-ce que nit ñi ñi ngi wéy di topp Sonko est-ce que ñi ngi wéy di topp projet bi est-ce que ñi ngi wéy ñi ngi wéy ñi ngi wéy ñi ngi wéy parce que ci diggante bi li fi xew dafa bari parce que am na ci ñoo xam ne leen doon xaar nee na gisagun ko te man jàpp naa ni 6 mois kenn mun ci gis dara jigéen bu ci ëmbee sax xanaa dina xaar 9 mois doog a wasin ci biir 6 mois am na loo xam ne ku la ni ku la ko dig ni mën na ko sax du ko def parce que pour man dañuy nekk ci état des lieux te ba tey ji nguur gi nekk ci loolu la ne parce que ginnaaw assise de la justice pour réforme yi def fi pôle financier bi ñu woote woote nit ñi jëm ci référentiel deux mille cinquante feeg deux mille vingt neuf liñ fi di teg juróomi at tuuti nag xat na xat goo xam ne te nag il faut que nit ñi comprendre une chose mooy njiit. nguur yi fi mës a jaar yépp juróomi at mosul doy ci ñoom pour ñu am deux mandats Abdou Diouf septennat la woon mooy juróom-ñaari at lay Wàdd septennat la woon ci mandat bu njëkk te boo xoolee de 2000 à 2007 lan la doon wax leen góor gi liggéey bàyyi leen góor gi mu liggéey bàyyi leen góor gi mu liggéey pourtant noonu lañ ko doxalee woon ak moom Macky Sall bi mu jëlee 2012 ba 2019 juróom-ñaari at la mais bi muy falu juróomi at la nu Macky Sall waxoon mais bi mu demee ba 2016 ci la indi référendum référendum boobu mu ne wii wala noo képp ku ànd ci ma yokk sama mandat parce que juróomi doyul parce que dem na ba xam ne juróomi at doyul pour def résultat Macky Sall. looloo indi mais Macky Sall bi muy falu en deux mille ans la ñu waxoon pourquoi mu dem ba 7 ans 7 ans yi sénégalais yi bëgg mu liggéey moo tax ñu yokkaloon ko woote wii ci référendum bi léegi li may laay wàdd de 2000 à 2007 de deux mille 2012 à 2019 ñu may ko Macky Sall pourquoi ñu ne duñ muñal Diomaye ak sonk loolu question la yi dañ ko jox majorité. yóbbu ko référendum ci référendum boo xam ne amoon na ay tappale parce que bi dañ na woon le 20 mai 2016 lañ koy def Macky bi mu waxtaanee Macky yàgg na def nii de voilà bi mu waxtaanee ak bi ban jàpp ni le 20 mai 2016 la ñuy def référendum bi danoo jékki rek mu génnee décret ne le 20 mars 2016 bett opposition bi muy dem référendum dalee na bett. parce que date bi ñu joxe ñu koy xaar ak moom date bi mu jàpp du benn dalee na nax loolu de 2019 bi mu gagné mun a bàyyi naa njuñ njaaj maanaam de mille 2012 à 2019 da doon njuñ njaaj mu gagné na bàyyi naa njuñ njaaj te 2019 la gënoon njuñ njaaj parce que fal na jëlee na fi poste première ministre te bi muy def campagne boole ko ci programme am dinaa dellu siwaat ci moom moom Macky pour walla ni nag kon il faut que ñi fi ne. ñu muñal leen parce que aussi niñ jotee réew mi la ay weer ci kaso bi génn tombe koor taf-taf nga forme ak gouvernement gouvernement bi sax casting bi mën na des direction casting mën na des parce que il fallait que mbiri gaaw parce que élection présidentielle waxtu wi ñu ko amal ak gaawantu bi ci am ban réduire sax waxtu ñu waroon def campagne électorale maanaam ci lépp ci patam-patam yi amuñu jotu sax xalaat ñu am un présent boo xam ne aussi un de dernier moment la nga ko tànn parce que Sonko moo doon suwaawu gars yi léegi ñu jël plan B mu doon jomaay yooyu yëpp dafi jaar maanaam dafa am mbir yi fi jaar ak décret yi Macky Sall signé balaa muy dem pour def politique de la terre brûlée sabote lépp dem def ay nomination yoo xam da nga waroon ñëw dindi lépp lépp fi ab bor boo xam ne dafa waroon a dem ba 2024 ñu lekk ko lépp ci 2023 mooy 605 milliards yi ñuy wax ñu programmer ko pour 2024 nekkate lekk nañu lépp ci 2024 ci 23 léegi bi ñëwee 2024 lan fa waroon fekk ci xaalis fekkuñu ko fi lan leboon pour def ko ci 2024 bi yépp lekk nañ ko yemuñu ci lool ñu tibb jugaale xam nga la mooy tibb jubaale mooy li xale yi di def bu lekkee ba suur xam ne xel mooy suur waaye bu lekkee ba suur seen xel dalul dañuy tibb jugaale loolu olof naan tibb jugaale maanaam tibb jugaale maanaam suur nga may sa xel dalul yooyu yëpp xew na fi kon il faut que ñu xam fi ñu jëm léegi nag mu doon un pari boo xam ne bu risque la est-ce que ña doon mobiliser wu à la base di dugal seen xaalis ah pour mobiliser wu est-ce que dina leen ko jaralati pour feesal Dakar Arena dem ba jam ñaajo yooyu yëpp daa am lu sonk di natt parce que ci ndajab jam ñaajo bi lay xam ne les jeunes kontaan nan ci juróom benn weer yi wala liñ doon xaar gisuñu ko wala communication bi waroon état bi waroon def def nañ ko parce que aussi sur le plan de la communication ñoom il faut que ñu yokk ko parce que gis naa fan yi yëpp après le référentiel mais ñëpp génn ministre yëpp dem ci plateau ñëpp dem mais loolu lépp doyul mais la communication à la base mooy base politique dañ koy dundal est-ce que investiture yi waa Pastef bëgg nañ ci Sonko aussi dina seet lool parce que aussi ñu wax ko ñàkkoon wax yaa a des frustrés ñoo xam ne tànnuñu leen wala kañu tànn neexu leen ànduñu ci rus nañu Sonko ba mënuñu génn di ko wax mais ñi koy wax ci suuf loolu tam dajëb jam ñaajo bi le 19 am solo loolu loolu pour Sonko mais aussi pour opposition mais aussi pour sénégalais yi mais aussi pour Pastef parce que nag ñun dañoo am jikko boo xam ne li may faral di wax gis bëgg yàlla koy def ci jaam waaye miin bañ ci jikko lay doon ñu nag bu la miinee yaakaaree la lu ne après mooy loolu parce li lin naan bu teraanga yokkoo noonu yokk ñu gis opposition bi campagne bu ñuy def pour saboter le projet campagne boobu démb maa ngi invité Sanu Jonn mu wax ci lu am solo mu ne dafa am plan bu opposition bi teg loolu lu jar a bàyyi xel la dafa am plan bu opposition bi teg mooy plan bu chaque talaata ñu indi wax ju bees mooy mbiri Abbas Fall indi nañ ko fii te loolu moom boo ko xoolee nga xam ne ay kàcc kasa la woon ay juróom milliards Azer alors que dara liyeewul Abbas ak Azer te ñi koy wax bu doon ni wax ji dëgg la ci ñoom ñoom dañuy dem porte plainte mais mooy loolu ñu jóge ci loolu ñu indi affaire voile bi mooy diggante nguur geeg chrétiens yi yóbbu ko foo xam ne eggu fa alors que affaire voile bi c'est pas une affaire de religion ni ñu war a accepter voile ci école chrétienne noonu la ñuy accepter croix ci école jullit yi kon ku ne nañ ko jox cëram loolu rek lañ ci jublu woon mais jël nañ débat bi yóbbu ko beneen niveau te expliqué na sax candidature Barthélemy parce que jàpp na ni électorat wu jàngu bi Barthélemy mën na ko récupérer loolu waa Pastef aussi il faut que ñu communiquer ci parce que gars yi chaque semaine dañuy indi benn ni ko sanu waxee sanu jonn mooy ki bokk taxawu te mu invité woon dem mun ngeen dem seetaan émission bi ci solution TV mu wax ci yu am solo ci yoo xam ne gars yi dañ koy teg yamuñu ci loolu mbiru Cheikh Oumar Diagne campagne bi di ngeen gis ñu indi ko bu baax te c'est stratégique parce que bu dee mbiru Cheikh Oumar Diagne électorat murid bi ak Touba boo demee ci groupe WhatsApp yi ak manipulation ak ñoomin seen da ngay sentir ni gars yi am na lu ñu ciy réussir parce que le combat ñoom danoo jàpp ni même buñ gañewul Touba le pouvoir ak Sonko ñu am dara Touba parce que Touba aussi mooy def la différence am na noo koy gañee kenn du la dab kenn du la seen moo tax mbiri Cheikh Omar Diagne am ñu ci appuyé def ci li ñu ciy def comme tey jii ñu nekk Pastef li ci côté communication li ci war a communiquer bu baax côté jàngu bi dafa am ay réalité surtout à Dakar l'église à Dakar loolu il faut que ñoom Abbas man bu jaroon sax ñoom ñu dem gis si jiitu jàng wax ak ñoom def ci communication nañ ko def parce que gars yi bëgg nañu utiliser loolu aussi contre le projet gars yi amuñu benn programme ma wax la ko amul ween programme léegi nag bu ñu jógee ci loolu léegi ñu indi beneen communication communication bi mooy comme li Amadou Ba wax mooy gars yi même bu ñu amul sax majorité mën nu yor réew mi parce que mën nga ñàkk assemblée nationale mën nga ñàkk assemblée nationale te continuer di doxal. loolu ay waxi tayam la mais boo ko jëlee ak ay waxi démbam lu wute la te ñëpp a xam ni ñii bu ñàkkee assemblée nationale haute cour de justice du am wala bu amee du am njariñ parce que haute cour de justice dafay lu normal bu bu nu falee assemblée bi ba installé ko après un mois danoo war a nekk ci procédure pour def haute cour de justice ñii tappalekat yi def nañ fi deux ans haute cour de justice amul Sénégal. haute cour de justice amul Sénégal loolu il faut que ñu bàyyi ci xel beneen bi ci topp mooy li ñoom Abdou Mbow ak ñeneen wane ci loi d'orientation budgétaire yooyu waxoon nañ ci ak yeneen ak yeneen ak gàllankoor ak motion de censure ak yooyu yëpp kon ñooñu tey jii du ñooñu ñooy jàppale nguur gi pour mu liggéey pour mu liggéey ñoonte dëgg loolu nag ñu naan Amadou Ba naan mag yi pour man kiif kiif benn lañu waxoon na ko sama chronique bu wees parce que Macky Sall li muy daw mooy haute cour de justice mais Macky Sall aussi li ma naan baadool bu jibee gàcce fekk tabi du am jàmm parce que élection yi mënoon na ci bañ a bokk mais comme nee na da ciy bokk benn mun nga ko nangul parce que bu ko bokk bu bokkul APR ci ñan loxo lay nekk loolu tam mbir la mais est-ce que nekkul dafa bëgg a jël wàllam ci défaite bi parce que en deux mille vingt quatre dana Amadou Ba lan gañe mais est que nekkul ni Macky dafa bëgg a jël wàllam ci défaite bi waaw wàllam ci defet bi parce que bi muy dem nga nga bañal ko nga nangul ko am na way mooy kenn mësu ko gagné ci élection moom personnellement mais pourquoi mu ñëw ba ci élection yi bëgg a bokk mooy pour empêcher Pastef mu am la majorité pour diriger te bokk na ci li ñuy daw mooy la haute cour de justice bi nar a taxawal Keroog nag dégg naa ko muy tontu Sonko sonk ay chiffres la teg teg euh, ay wax Macky na li ñu wax du dëgg delloo nañu Sénégal ginnaaw moom bi muy dem réew mu naat la fi bàyyi woon waaye jamono yi mu fi jógee réew mi dafa naq di ba note yu doon am dafa faible damay laaj Macky Sall kañ la réew mi neexoon. bi ay junni ndaw di nekk ci kaso bi boobu la réew mi neexoon ñu naan réew mi dafa naqadi léegi nan moo kay la neexoon bi ndaw yi di mbëkk gàlloo ca yi di dee ci géej gi ñoom ñu koy ñàkkal fayda mosu ñu ko jox yitte boobu la réew mi neexoon bi li jege téeméeri ndaw di daanu ci toolu xare di dee fii kenn enquêtul kenn àttewul kenn lijjantiwul te moom mu nekkoon jiitu réew mi boobu la réew mi neexoon bi Covid bi ñi tëju suñu kër suñuy bàyyi ak suñuy mbokk di faatu hôpital yi fees dell ñiy sàcc suñuy milliards boobu la réew mi neexoon inondation yi ñuy wax ci réew mi 750 milliards yi ne sàcc nañ ko ci plan décennal yoo xam ne ñu ne def nañ ko ci mbënd mi te mujj cee def 400 milliards boobu la réew mi neexoon. mu ne moom Macky Sall day xaar cour des comptes pour cour des comptes wax waaye ay waxi Sonko moom jaralu ko dara parce du dëgg léegi mu ne cour des comptes lay xaar Macky tey nga gëm cour de comptes cour des comptes nekk une institution ci réew mi ñépp xam dara darajay cour des comptes ay magistrats ay agents assermentés jiite ko génne nañ fi ab rapport ñu tudd ci ay nitu Macky Sall Macky Sall mii ne li Cour des comptes waxu doyu ko moom Macky Sall laa la wax de une institution comme Cour des comptes génne ay rapport mu laal ay nitam mu ne li Cour de comptes wax doyu ko xamu lu mu ci teg mooy dañuy créer beneen commission ngir mi càmbar liggéey Cour des ndax de daal li Cour des comptes di wax doyu ko kon war nañ créer beneen commission commission boobu ba tey parce que xamoon na ni mënta ne mais ay tappale la jiitu woon moom mii di Macky sàll cour de comptes bii muy wax génne na fi ay résultats nee moom te tey cour des comptes lay xaar moom ndax wóolu na leen mais Macky sàll gis nañ fi Moustapha Diop mi fi nekkoon ministre de l'industrie cour de comptes woo ko waa ci information yu ñu am mu ñàkk leen teggin Mansour fay mii jël na fi cour des comptes ne ay politiciens lan yi liggéey Pastef ci jamono Cheikh Oumar Anne jël nag ne nag couleur Pastef lan ko peinturé moo tax ñoo fa ne ay politiciens te OFNAC ka fa ne Macky ko fa teg kon Macky bonne gouvernance kañ la ko yitteel ba mu ne day xaar Cour des comptes kon il faut être sérieux ji nga réew mi fi mu jëm ñëpp xam nañ ko Ablaye foofu lay tëjee wala Modou mooy teg nañu référentiel wàllu koom-koom la man dama koy bàyyi experts yi parce que du mu wax ci lu ma xamul lu ma maîtriser wul mais man dama gëm ni lii bu doon lu bon la démb duma gis waa Union européenne wala Banque mondiale ñu ñëw di féliciter jomaay RTS FMI min doon wax ñëw féliciter senegal Boubacar kamara bokk na ci ñi ëpp diplôme ci réew mi ci wàllu koom bàyyi lépp na day gunge gaay yi Mamadou Lamine jàlloo punkal la kanfoori la ci wàllu koom. liggéey na ak nguur yëpp te kenn yabu ko mu ne lii ànd naa ci El Hadj Malick Gakou économiste la mu ne lii ànd naa ci maanaam ñi xam te jàng pratiquer état pratiquer waat ko waxuma la ay cooma de mën naa la tuddal leneen ba ci Mouhamed El Amin Lo ñu ne lii ñu gis dal na seen xel ñu ne fii juróom fukki at mën nañ ko doxal waaye nag duñ xaar juróom fukki at pour yombal lépp waaye de waxtu wu ne dañuy teg dara di teg dara di teg dara di teg dara ba egg ci juróom fukki at bu ñu eggee ci juróom fukki at réew mi mën a tegu ci yoon waaye kenn waxul li Thierno Alassane Sall wax Thierno ak ni mu amee xam-xam ak ni mu nekkee nit ku ma jàppee ni ku honnête la ku am xam-xam bu demee bay moom mu mën a daanu ci terrain ñoom buggaan des fois damay poser question lan moo xew parce que nee na kon nan mu fi ak juróom fukki maanaam fii ak fii ak 2050 man nañ muñ fii ak cinquante ans 2050 fii ak 2050 réew mi day métti ñi duñ ci jéem dara nee na gars yi 2050 la ñuy tàmbalee liggéey mu ne loolu kan moo ko mën a xaar Thierno Alassane Sall moo wax loolu ci borom xam-xam bu toll na moom maanaam moom ni warul wàcc ci niveau yenn gaay yi parce que moom am na fu ko gars yi di xool kon ñu ngi leen di gërëm di leen jéggalu di baalu àq ñëpp bu dee dérapage am na ci wax wax ji di gërëm El Hadji Modou Diouf Abdou Toob ak Ablaye Diallo ak Fallou ci régie bi Omar bun Xattaab gi moo nekkoon ci kàddu gi kon beneen alxamis incha allah bu vingt h jotee ci solution info TV ñu dellusiwaat ci beneen 30 minutes chrono jërë ngeen jëf.